Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les responsables des institutions, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, chacun, chacune en ses titres euh, grades, je voudrais vous saluer et vous dire le plaisir qui est mien à me retrouver ici parmi vous pour parler du Sénégal. Idrissa en s'étant exprimé en français je vais moi alterner pour je suis membre du F24 je suis membre de Yewi Askanui. et pourtant je suis à ce dialogue-là en tant que Taxawu Sénégal je suis un dialogue parce qu'il s'agit du Sénégal Je bokk ci dialogue parce que je fais partie dans cette salle de ceux qui pendant longtemps et toujours ont compris que lu nekk dañ koy waxtaane dañ koy pour parce que rek Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je suis membre de l'opposition que vous dites radicale. Aujourd'hui, cette frange de l'opposition n'est pas ici lu tax nekk fi war nañu interpeller ku nekk ci ñun je vais essayer de tenir les trois minutes les cinq minutes alors lu tax ñëw ñëwuñu mooy moom moo am solo loolu la ñu war waxtaane parce que dialogue yi am yépp ñëwoon nañ pourquoi la défiance bi ñu manifester pourquoi le doute biñu manifester ba tax tay ñewuñu man rek ma ñew ci yeewi askan yu fekkee et j'assume ça pourquoi monsieur le président lool lañu war réfléchir parce que du guleet ñu dialogue du guleet ñu tok di wax daan na ñew ñewuñu ñu bari liñ lay wax mooy dara beesu fi dara bees y a aucun sujet nouveau bu fi bees ñu ngi ci dialogue bi depuis toujours ñeent ak juróomi problème yi nga xam ni moom moo amal solo moo ñu amal solo dañ ko waxtaane waxtaane waat ko waxtaane waat ko te amul solution moo tax ñu bari ci ñoom ni ma ñun duñu dem man leen déet waxtaan nag moom du am tàyyi du am sonn da ngay waxtaan rek di waxtaan rek di ngeen juboo ñun loolu la ñu gëm ñu ñëw fii monsieur le président la question du troisième mandat du lu il faut que nous waxtane ko il faut que nous waxtane ko mënul ñak que nous bok ci élection bi mënul nous ñepp bok lu war la que parrainage bi nga avons problème problèmes, des day indi distension il faut que nous waxtane ko mënul ñak nous mënul ñak aussi moy les modifications des articles 57 29 30 et autres mënuñu ko bañ waxtaane parce que problème la li mënul ñàkk mooy ñi nekk ci kaso yi presque cinq cent personnes ay politique ak ay journalistes mënul ñàkk parce que na xam nga réew mi su fekkee dañ ko bëgg a doxal il faut que ñu bañ ragal di waxante dëgg suñ nangoo waxante dëgg rek danañ avancer fii li am solo mooy en tout cas ñun suñu teewaay dañu ñëw pour liggéey pour waxtaan pour juboo pour réew mi kanam parce qu'il faut que nous rassurions ce pays il faut que nous réconfortions les populations il faut que chacun comprenne que réew mi kenn moomu ko dañ pour mu jëm kanam maa ngi leen gërëm leen merci beaucoup M. Khalifa Ababakar Sall wax donc ci turu taxawu Sénégal mais aussi Nek. Euh,